noonu la demee moom dëccee dem di toppatoo leneen foofu nag la problème bi ame c'est là où Saliou Sarr a fait du n'importe quoi foofu la Saliou Sarr nekkee en jeu Saliou Sarr c'est un plus que proche de Khalifa Ababacar Sall moo gën a jege Khalifa Ababacar Sall ñëpp taxawu Sénégal la bokk moom mu dem ci biir salle bi au lieu mu déposer liste bi nga xam ne moom la ko dëccee jox au mu déposer liste bi ko dëccee jox ñu génn ci paala Samb déedéet mu dindi turu ndaw siñ ci dugaloon delloowaat turu Pala Samb kon xam nga liste bi baaxatul ba dugalee ndaw si liste bi paritaire na moom ci boppam mu jël responsabilité dindi turu Paala def ci euh, turu ndaw si changer liste bi nga xam ne mandataire officiel bi daf ko jox na ko bii nga war a déposé bii la ñu juboo ci kàddu man ak ñoom euh, ak coalition bi léegi demal nga déposé bi déedéet Salif Sarr dugg ci salle bi mu war a déposé dindi turu euh, ndaw si delloowaat ci turu Paala Samb parce que nag Farba Ngom kan moo ko yëgal na ko Saliou Sarr moo déposé liste bi Farba Ngom moo génne dañ moo njëkk a génne ngoon ci Barthélemy Dias demee direction générale des élections guddi gi benn bokk Farba Ngom moo njëkk a tudd turu Saliou Sarr la siq ak Farba Ngom question ay question on n'accuse personne est-ce que daf ko def délibérément pour saboter la liste départementale de Yewwi Askan Wi est-ce que def ko def en connivence avec le pouvoir pour liste bi forclose Benno Bokk Yaakaar déroulé Farba Ngom kan moo ko yëgal na ko Saliou Sarr a def loolu looluy dëgg ban respect la am ci coalition est-ce que ñi respecté nañ Khalifa Babacar Sall nuroowu ko respecté wuñ ko joxuñu ko cër et puis waxamaane ni mu